سلي النيا إلهي واجزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام وسلي النيا إلهي واجزينا أبدا أنا محمدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لما نفعل والحمد لله لما فعل لنا الرحمن بالنعمة الرحيم بالعزمة الرحمن بالتجلي الرحيم بالتدلي الرحمن بكشف الأنوار الرحيم بحفظ ودائع الأسرار الرحمن بذاته الرحيم بنعوته وصفاته الحمد لله الكامل في كل ذاته الكائن في غماء غياباته الكامل في أسمائه وصفاته حدائق قامت بشكره عينانها وسجدت لفضله أغصانها وترنمت طربا وتمايل عجبا بنفحاته يعرفه وبركاته عرفه إنه لشرف لنا في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الصائحة الاستثنائية أن نزجي حر تحيتي إلى حضرتكم الميمون وأن نجلس أمامكم في هذه البقعة المباركة لهذه المناسبة الدينية مناسبة يعني مناسبة دينية ثقافية فنحمد الله الذي أزال دخان الشكر عن قلوب المؤمنين وطهرهم من شهوات النفس واليحموم ونصلي على رسوله الناهي عن بعات المضرات الناهي عن تناول روائح المكروهات صلى الله عليه وسلم جناب سنت يا الله جل سيدنا محمد نيل نجر الجو دي نيو سنو بوب ناخ القران دا نيو اذا دخلتم بيوت فسلموا على انفسكم نفس ngeen may ma nuyu ñett nuyu imam mu yobale cëpp bokk ci dëkk yi nuyu Chérif Ibrahima mu yóbbaale képp kuy kilifa di sëb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu Sidi Ahmed si mu yóbbaale sëñ Abdou Aziz ak képp ku bokk alxadratul malikiya nuyu sëñ Pape Khalifa tabaarakallah mu yóbbaale képp ku bokk ci daayira mu toon ngir yàlla ak bis bi jotale nuyu sunu waaj suñu Abdou Karim ñu ngi fi teew ànd ak sunu jaam soo xam sunu sang soxna maam Faama Fall ñu teewal njaboot si di Haaj Maalik gi te Louga ànd ak ñoo sëñ Abdou tabaarakallah ñëpp ñu maf ñàndu maf ñàndu mooy lan waxtu daf ñu dënk ci trente minutes lañu am war a waxtaan ci cigarette cigarette wala dafa wax ne siin gi sikk la keex gi kéefër la raa gi reewande la taa gi tësay bopp la dañuy wax ni kenn marewul woon cigarette almati ñett nag wala almati juróom soo ko gàccee ci paquetu cigarette te fay woo weer ba ñu la ñëw ñu ni siiw gi sikk la kaaf gi kéefër la raagee ne yow dana tàggate say bokk la ñu tuddee ko adduxaan ñenn ñi ñenn ñu tuddee ko tabax ñenn ñu tuddee ko tabaa boroom saaxibul ishaarati ahad ba taalif ci téere ni yu sammuunahu duxaana wal baadu tabaxatan wa baadu yunaaduunahu li jahlin bi taaba وبعد أولي العرفان من بغض من بغضه لها يلقبها بخابة فقلا لخيبتي نانا ني امي عرفان خي بيرت لا نكو تودي غير لان يغني تفاؤل لا كيب كوي توخ ريغات تي بيرت ما لاي ديف بروم امام نوفيتي تي طريقه بي وخني ولا تسميها اخي بطابه نانا بوكو تودي تابا تابا بوكو تودي ندخ تابا تورو سيدنا تورو مدينه فا يونتي بي دك بل سميها من خيبه بخابه لأن صاب مدينة الرسول فحرفوا اسمها بذاك بالمنقول توخنا تور يي نوي تودي نيات لا سيني منصور بلاي ماي وير دان لا نانغ تاريخا بي نانغول توخ نانغول مخي نانغول مخ نانغول فيام نانغول كيت واري خيت يوي لاج باي ديف مام تي ديما واخ توخ موم موي بي غاي جيل داي واخ ني tux ci koy def sax buy taal sigaret bi toskare àll ji toskare lay tàkk daan tos ni ko wedd naa yàlla fur ñu ni ko wedd mu génne yàbbi seex te bu jëkkat mukki nag mooy def boo ko xëccee ñii ñaan ne ko moom la ñu xëcc ñaar yoon lay xonq rek nga delloo ko borom mëq nag pon yi ngay jël di ko lokk def ko sa biir gémmiñ fëyam da nga koy fóon bu la xetu duggee gëstu kiituwaale nag ma nga koy yor da koy teg ci wetam rek yenn saa mu sëgg def ci li def ci soo gisee mu yàq jikko te ñu jëm ca ndax araam naan dagan na amul ku ko bëgg te bëggoo ko sa kër benn mag doom ji day tux ñu wax ko ko mu xam ni su dikkee ni ko dégg naa da ngay tux da koy wet mu jógee marché rek si mu yi teg jël jaas ji teg ci kaw ni koy dégg naa da ngay naan sàngara léegi mu ne ko papa naan xanaa tux la la wax kay nag mu ne ko waaw koy tux moom laa bëgg li jënd waaw tux moom laa bëgg li parce que bu ko newoon da ngay tox mu ne ko déedéet dañuy wax rek waaye daf ne ko dégg naa léegi da ngay naan sax mu ne papa naa sax xanaa tox lañ la waxee mu ne ko waaw tox moomu nag laa bëgg a xool ndax c'est vrai wala déet boo demee ci téere tanbihul ixwaane ala nusuusil ayaan fii tahrimi duxaan Aboubacar Atiq moo ko def ci tarixa bi la bokk mu ne na ngeen xam ne cigarette ñu ngi ko génne ci dixième siècle ginnaaw su sayidna ginnaaw sayidna gàddaayu sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga moo ko jëkk indi ci rome yi ab anglais la ki ko jëkk a indi ci maghrib ab yahud la mais ki ko njëkk a dugal égypte mi ngi tudd ahmad ibnu abdullahi alxaariji reykatu nit la woon tuurkatu deret la woon yenn saa ñu laaj la ni pourtant dañoo gis ressortissant égypte yu bari dañu tux cigarette kon dagan na sih pandai dia udah lama udah wakon banget sih udah lanjut su ko defee am na ko ma laaj de ni ma ressortissant égypte keer yu bari dañuy tox parce que kon sigara dagan na ma ne ko ña fa génnee te perte seen jikko ñoom ñoo koy jëfandikoo parce que cigarette fokk ñu layee ndax dafa xaraam wala xaraamul te boo nee araam na da ko indi foo ko layalee te alxuraan gisuñu fu mu tuddee cigarette xadis gisuñu fu mu tuddee cigarette moo tax sëñ Mansour bu seen Cheikh dama mës a dégg ci moom benn anecdote mu ni dafa dem Égypte benn xaritam bu mu nekkandoo woon fii ci daara ji ñu jàngandoo woon nee na mu dem ba yëg ni ma nga teer mais dafay tox léegi mu dem gane ji ko nee na ñuy reer mu génne cigarette taal ko ci wetam di tox nee na ma ne pat ñuy lekk suñu lekk rek nee na bëgg na ma wax ci cigarette bi ndax daga ba ma discuté moom mu indi ma ndax daga na wala xaram nee na ma kóone sama lekk nee ñu dem ba mu yàgg rek waa tàkkar mu ne waaye sama cigarette bi yow doo ci wax dara mu ne ko sa cigarette bi lu ma ciy wax yow sa maam danaan naan sàngara daawul julli alaaji Maalik fexe ba say maamaat mu defar leen indi leen teewaan am ci yow yaakaar tax Tiwaawan defar la nga dem ba delluwaat teer delluwaat ca sala maam cosaanoo da ngaa dellu cosaan ku dellu cosaan nag man ñëw ma mënu ko ginnaan li nga ma wax tey saaga ba sax ma gën a loolu li nga wax tey mais ñi nga xam ne jógoon nañ pour dagganal ko ci ay borom xam-xam Seydi Ali al Ajhuri yi ci la bokkoon Allaama Seydi Ahmad Baba as sudaan yi ñi nga xam ne nee na sigar dagan na ci la bokkoon Seyda Abdul Ghani an-Nabulusi nee na woon ci ñi wax ni ci sigar dagan na ci la bokkoon boo demee ca Mayaara ala Xaasid ibnu Asir ci bi muy ci euh, ca yax ba dafa wax ni lañuy ñuy jëlee seen wax ñoom dañuy wax ni te jëlee ko ci xadisu Tirmisi ibnu Maaja soloo ko mooy sallallahu alayhi wa sallam dégg nga lu lu dagan mooy lan bil xalaal maa ahalallahu fi kitaabihi al aziz lu dagan mooy lu yàlla daganal ci téeréem bi tudd ko mu leer te wal xaraam lu araam itam mooy maa xarama allahu fii kitaabihi li yàlla araama tudd ko ci téere mu leer léegi nag wa maa sakata anhu lu yàlla noppi yont bi noppi ci waxuñu ci nee na loolu te kat fàttewuñ ko min xayri nisiyaan nee na loolu rahmatul lakum léegi nag ndax amul nas amul yax bu ci wax ñooña ca mayaara foofu lañ dellu ni kon ñoom dañu koy daganal ba am نيتي بن واي نيت اشرب نتنا نانال توخل حلالا طيبا ودع السفسافا ممن عزلك توخل تي واخو ني ديتاي نان لا دافا ارام بولن دغلو انه والله نبت طاهر لكن الاغراض ترمي بالهلكي موم غانتاخ بو تي لا بو نات لا مي بغ بغ ييغا خامي نيت موم لا يال مو لا الكاندي am ko way ca loola ni wali nasi fi ma yaasiquuna madahibu nit ñi liñ bëgg am nañ ci seen fété waaye wa hikmatu rabbi fi ixtilaafil masharibi nit ñi fi ñu wuté moy sét lu neex ñu naan su ko défé pour ñu indi anam gi mu aramé ndax wax naa leen ñi nga xam ne te am nañu ci génnaat daañu ko wax ci biir tam bi imam Qasalaani yi dafa wax ci almawaahibu labniya nee nañ borom xam-xam yi d' accord nañ ni 120 lor yoo xam ne ci sharia la dellu yi ci diine yi ci yaram mi ngi ci tabaa mi ngi ci biir cigarette moo tax ñenn ñi ci seen xam-xam egg wax nañ ni cigarette moo gën a bon sàngara yegg nañ ci wax ni tuxkatu cigarette bu ko deewaalee safara la jëm daga naan ma nag lu tax parce que nit ki boo ko waxee dara da koy wax loola nga ko wax fu ko teg ñu ne sàngara ki ko naan ci boppam la yem alquran nee na nañ ko dóor juróom ñetti fukki yar pour corriger ko mais cigarette daañu ñëw ci biir ci en français ñu wax ni am na ñoo xam ne toxuñu cigarette mais ñiy tox ñooy yàbbi saxaar si di leen ko xër ñoom ñañ koy xër ñu di ko noyyi mu leen di rey maanaam ñoom toxuñu mais toxkat a leen jege ëf saxaar si ñoom ñu noyyi saxaar si dee ah mooy tabagisme passif léegi nag ku rey benn nit safara nga jëm kooku moom ñëpp d'accord nañ wa lii kaana li mu'minin yàlla wax na ci alxuraan ni ay yaqtula mu'minan illaa eh, eh, xataan wa man xatala mu'minan nag xataan fa tahriru raqabati ñaar la ñuy rey nit reyu tey ak reyu ñàkk tey yàlla ni soo reyee jullit te tey ko dafa am noo koy réparé kon yow miy tox ñu wax la ni soo doxee dafa am ñu muy rey te tayoo ko la wax mooy man maanaam tayoo rey gi léegi am na ñooy rey yow te ku rey benn nit safara nga jëm yow rey nga ay fukki nit maanaam yow sa mbir bu la yàlla jégul kenn mun a tee nga dem safara bi mooy reyu tey jàng nga ko liir nga ko nga tey tux bee ko woon tux nga rey nga bii nag xam nga ko tux nga reyati nga wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaahu jahannama yàlla nee na safara nga jëm xaalidan da nga fay sax fiiha tey du tey yem wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azima kon loolu ci xel rek maanaam ci xel soo ko jëfandikoo rey nit yow safara nga jëm ndax foo leen di tuubee doo ko xam foo leen di baaloo ak doo ko xam mam Habib si bu Sëriñ Xaaji Maalik dafa dem ba benn moment am ay muqaddamu tariqa bi yuy tox sigaret mu taalif di téere moom mam Habib tuddee ko radool ixwaani an surbi duxaa téere bu mag la maam Habib see ko taalif mam Habib si Euh, Pape Seydou Wele ci téeréem bind na ci ni wax ñu ci noppam ni maam Habib ñu bëri ñu ngi koy wax mais xamuñu turam maam Habib Cheikh Ahmed Tidiane la ko Seydi Hadji Malick tudd Cheikh Ahmed Tidiane la tudd mais maire yi ñoo daan Abul Abbas lañ ko daan wooyee maire di yàq soo naan amul labbu amul labbu jooju ñu taam wax nag sëñ bi xaaj naa ni bu nar a yàq sama turu soppe bi nag ma tuddee ko Al Habib yam kooku moom entre parenthèse la bu gàtt la fi ñu roxul موي ناك لما مام حبيب ني لما رايت ما عمت به البلوى من شرب الدخان ديغا خامي ني توخ ياتنا وعدم مبالاه ابناء زماننا بامتثال الاوامر بفعل وجنا بالنواهي بتركه من لما رايت مسلمين الذين ينتسبون الى طريقه احمد التجاني يتعاطون شرب الدخان المعروف بطبع موتاخ بروم صاحب التعن السنان في نحر اهل الفتن والدخان ني وكم مقدم بالزماني دنگا ولا عبد الشمي وبالدخان وكل من كان على ذا الحال فانه ضال وذو اضلال يا ويله ان لم يتب من الدخان يكسى غدا سرابلا من خطران موتا سيدي حاج مالك بيمي تالي تيرك افهام بنت جاني تي بنت جون نيار با مو اندي سي سيغار ني داما تي باركلو رك مي ني جوتون بند بند نانتي با با بري با جال كون ناتي دوندو واي واخ نك موني تي نيك تي داني اندي باسكو tarixa du araamal mais yàlla mooy xaraamal léegi nag pourquoi ñu ni tarixa bi mooy solution bi parce que tarixa amul droit araamal lu yàlla araamalul boo demee ci misbaaxu saalik ku araamal lu yàlla daganal safara nga jëm ku daganal lu yàlla araamal safara nga jëm mu des nag ñu layal ko kon avant ñuy wax ci tarixa ci sharia mais avant ñu layal ci sharia nañ ko layal ci xel ba noppi soo ko dem ci wàllu sharia moo tax sëñ dafa wax ne للحرام ما يكون حلال هو عقلا واخبث ما يكون حرام نينا لي اوب تي ليغا خامي شريعه دا فكاي حرامال خيل موكو نديكا باج با بري شريعه سوكو تري ليغا خامي شريعه دا فكو دغانال خيل موكو نديكا نانغو با بري شريعه سو نيو دغانال سوكو ديفي ات خيل موي لان لو خامي امو تي القران امو تي حديث فكي درم بوكو سيتي لي نياري نيت كو نيكو جورومي درم غا يال كوكو بو ني نيت كي دا نغا واخ القران فان لاكو يالا واخ فان لاكو يونتي واخ دوكو تي غيس soo ko soxlul muy dem ci alxuraan mu des attaya aada ku boppam metti mu naan paracétamol mu sedd boo ko nee fan la ko yàlla bind ci alxuraan amu kon yooyu avant ñuy egsi ndax alxuraan indi na koo leen diw ko wax naa leen ko démb ginaar amu ci alxuraan lekk ginaar amu ci teewu jën bu am bëgg amu ci waaw waaye nag usul dafa wax ne waqad waqad euh, nuhu an diddi maa umira wa umira an diddi nëfin fanta bi lépp loo xam ne sharia diglewu ko dagan naa def lépp loo xam ne tere euh, digle na ko contre tere na ko contraire ba dagan na lépp loo xam ne daganal na ko contraire ba araam na su ko defee nag ay aaya alxuraan lañ leen di indil pour xam yii nga xam ne sharia daf ko daganal ci fan lañ ko teg su ko defee mu des avant ñuy dugg nag ñu dem ci wàllu médecine nga xam ne ci wàllu xel la ñuy àtte ba noppi soogu dugg xool cigarette bi nga xam ne nit nga koy dox nicotine bi ciy nekk mooy lan luy nicotine ñaata produit chimique ñoo nekk ci biir cigarette quatre quatre quatre mille éléments lañu composé cigarette boo gis su ko defee nicotine ci science boo demee CH H e, quatorze N deux lañ koy symboliser mooy dix atomes e, yoo xam ni de carbone moo ci nekk quatorze atomes hydrogène moo ci nekk deux atomes d'azote moom moo ci nekk moom e, nicotine bi kese Jean Nicole ci ñu njëkk indi tux ci France ci la bokk mais en 1809 ci euh, euh, Louis Nicolas moom moo njëkk a trouver nicotine boobu mais kañ lañ ko génne ba ber ko ñaari savant allemand ñoom ñoo ko def kenn ki mi ngi tudd William Hendrik euh, Peuzet kenn ki mi ngi tudd cadre Ludwig Riemann ñoom ñoom ñoo génnewaat nicotine ci biir cigarette wax ñu itam nag danger yi nekk ci cigarette yan conséquences la am.

rythme cardiaque bi nekk ci nit nicotine bi daf koy développé daf koy yàq te day rey nit indi yi nga xam ne par exemple moom la nicotine joxe ci tënk pour gagner suñ trente minutes yi nee na ki koy jëfandikoo nausée da koy dugg palpitation day dugg ki nga xam ne da koy jëfandikoo nicotine bi moo de tête muy sifalee day dal waa ji nga xam ne day jëfandikoo nicotine boobu insomnie ki koy jëfandikoo dootul nelaw guddi te trouble mental la koy indil jaaree day daw biir moom cigarette bu nicotine bi demee ba dose boobu nga xam ni mooy surdose bu demee ba ëpp ci yow noonu la lay def lipothymie da koy def moom te mooy malaise euh, euh, vertige lourdine étourdissement extra yooyu yëpp nicotine bu ëppee ci doomu aadama da koy def dafay def hypersalivation nit ki dana dem ba dootul mën a téye ay tiflitam te nicotine bi bu ëppee ba surdose noonu la lay def dana aussi indi li tuddee Euh, cancer de poumon léegi ci xel bu ñu demee ci yi ñu wax léegi nga xam ne yépp day rey nit benn bu ci nekk day yàq organisme doomu aadama bu ko xel nangoo ni comme lii day yàq xel waroon na ko mën a dàq alxuraan nag dañuy soo ko jàngal aay yàlla wax ni bu leen dugg ci lépp loo xam ne alkande da cee nekk wala loo xam ne daf leen di yàqal hmm? moo tax borom xel nag war ko nangu ku am xel laa am nag moo tax moo ko àtte xel Euh, boo gisee wax àtte xel maa ngi koy nettali dafa am benn dof xam nga dof ñaare xel yi xel du am xel am ku dee ci koñ bi ndeke moom dof bi ñoo bokk tur bokk sant maanaam bokk koñ bi ñu dëkk bi ñu tuddee turoo waa ji dee rek dof bi yaakaar ne moom la ñu dof bi taxaw nangatul avancé ñu wax sant bi rek dof bi toog bi ñu waxee koñ bi rek la dof bi tëdd na commencé yóbbu dof bi xalanku 30 bi ñu téye ko muy jooy ñu ne ko lan la noppil mu leen damaa xam ne suñu waa kër dañ maa bañ rek maa ngi gaañu depuis démb ci heure bi ñu dama ko nëbb ba léegi ci jàkka ji laa dégg tàgg waaw moom yaakaar na ni ki ñuy tàgge moom eh, léegi nag maanaam douze éléments yi nga xam ne Taba indi na ko te mooy ay poisson bu ñu ko du duñu pare mais dafa mel ni projecteur bi préparé nañ pour loolu ci ci dem Serigne Hadj Malick bis day firi alquran bam yag ci ndar mu leen suba dina gag mag ndar yep tok Serigne Hadj Malick ni ñu suba dina gag ci firi sotu safar bi ñep toge mag ngi tok muy firi bam yag mu ni adalika khairun nudula am shajaratu zaqqum inna ja'alnaha fitnatan li zalimin innaha shajaratu taxjur fi asl jahim talaha ka'annahu annahu shayatin bi yesse ci aaya jëre ci ruuxul bayaan Serigne Hadj Malick taxaw زقوم خبي مي ام كوتهيم موما بون ньо نورو بن خوب موني خدي بوكو ساني تي سفر داي خاسو خدو نخر لام سيدي هاي ما دوجو تي ديتاي دي تي دوجو خالو تي ديتاي بي توك مودي غي ماغ ندار نيكو مودو بالله يا باخت غور تا يارو دا نيو بغا واخ سيغر ارام لا رك تي خامو نان كوي واخه كيب كو يورن گن تاي نكو دوتي خير مو توك خامني سيدي هاج مال ني ياي نا نيو فسانال سيغر ارام نا جوي اي جي لين اندي واخ لين سجد زقوم موي لان اك سخار سا تا نيك ñoom ñëpp ñu nangu ni que sikkar araam ñun ñu toj seen i gën ba la ñuy ñëw ci wàllu ñu ngi sharia spirituel pourquoi jawharatul kamal boo gisee tarixa bi di ko bañ xam nga jawharatul kamal ñu bëri xamuñu baatu kamal bi lan la ci wut xool juróom-ñaari bunt la am sept bunt sept bunt yooyu mooy waral boo tollee ci juróom-ñaari kër jawhara ñu la sayyidina Muhammad ak sahaaba yi dañuy teew am na jawharatul zikri am na jawharatul shawqi am na jawharatul mahabbati am na jawharatu sirri am na jawharatu ruux am na jawharatul maarifa am na jawharatul faqri juróom-ñaari jawhar yi ñooy poor yi nga xam ni moom la xolu doomu aadama buy tudd yàlla di di yëngatoo di di tëb di dal booy tux cigarette turu yooyu da koy boucher kenn mënut a tax nga jaruñu moo tax si Ahmad Tijaani boo demee ci kasul xuyum fii baadi asraari xutbil maktum li salaahu diin mi ngi ci Égypte Ousmane Ndiaye mi xam na ko gisante naa dundandoo moom mu ijaazaal ko bind na ci ni si Ahmad Tijaani am na benn taalibe bu mos a génn àdduna bi mu génne àdduna ñu koy son dafa feebar sukuraat ñu koy wax loo baatu ashhadu an laa ilaha illallah mënu koo wax bi mu sonnee ba sonn ndekkee ñu yëg ni danaa jëfandikoo cigarette keroog la Cheikh Mer ni leen bis nag tey kii moom bu ko kenn jëfandikoo ko muy cigarette boo demee ci Ibris bi Abdou Aziz ba am na ci taalibe boo xam ne ba ñu ko lëmasee ak tàngaayam la ko sëriñam xool la mu daan tux nekk ndox di xelli ba tooyal mbalaan ni ñu ko sàngam mu ne kii moom ndegam lii mooy génnaat ci moom kenn mënut a yàlla ba mu moo tax Abdoulaye ibnu Tahir yonent bi sa daraan gis Sidina Muhammad saa sax mu laaj ko waaw nan nga gis si loolu saxaar sos ñuy wax du xaan mu ne ko hiya xaraamun hiya xaraamun hiya xaraam ndax Sidina Muhammad mi ngi dund ak ñun ba léegi tànt bi Sidina Muhammad mi ngi ci ndax shaahidan aleykum la yàlla wax moo ñuy seede ëllëg te bu nekkoon ci ta jataay bi tey ëllëg du mën a seede suñu jataay bi ñu defoon fii ci ngor fa kayfa idaa ji'naa bi kullin bi shahidin wa ji'naa bika alaa haa'ulaa'i shahiidaa yow yaay seede ñii ëllëg مجاكم سيدنا محمد موت انا من يقولون لنا سيحرمها لنا فوالله قد جاءوا باعظم فريتي تايب نينا نينا امول يخ من نار يي غن ري نيوم نار نانكو من من نك فكيف واهل العلم قالوا بمنعها كما تكره في فنون الادله من نيب دا اندي نني لول حرام لغي نك مو ديف بو ديلو سي اصول خم نغ اصول دا فا ام القران عثمان جاي خم لو اصول دو سا ياي امول jàpp sa papa dóor ba mu tëdd benn place wala sa yaay dóor ba mu tëdd amul fu alxuraan tere waaw kenn du ko ku ma ko indi ci alxuraan ma kaal dóor sa yaay amul ci alxuraan waaw léegi nag pourquoi lu amul ci alxuraan rek xaraamul usul moo lay lijjanti moo naan la yàlla nee na la wala taqul lahuma uffin bul wax sa yaay ak say wajur ëf usul ni ëf day metti xol dóor day metti yaram di metti xol waaw ku lay tere luy metti xorom boo ci boolee luy metti yaram du ko gën a tere loolu lañu tuddee ci matière usul al mantuqu wal mafhumu alquran bi lay wax loo xam da koy wax ci yax bi ak loo xam yaa koy dégg ci biir dañu nekk ci aan ca daara ji benn waa jigéen jóge états-unis ni pourquoi ngeen di dóor xale ci daara ji wan leen ban xadis la yonent bi diglee dóor xale ak ban aaya la yàlla diglee dóor xale su ngeen ko génnee rek ñu xam ne dóor xale ngeen dóor ci daara ji daga mu indi problème nag yàlla def ñu natt comme doon nañ nar nawi ci usul ma ñëw fekk ma ne ko yow ñu yaa xam li nga wax non arabe yi usul dafa ne al musbitu muqaddamun ala al manfi kii saxal moom la ñu war a njëkk déglu koy daal yow yaa ngi wax fan la alxuraan téere dóor xala ñu bàyyi dóor xala ah, gàmm ki tere gàmm moo lay wax man addis la ko yàlla yi mais yow mii gàmm bu ko wax man addis la ko yàlla wax da ngay sonn amu ci mais ki ko tere moo lay indil ni lii lañ ko teree ma ne ko yow yaa ñuy wax fan lañ teree dóor xale bis na ko tey kenn dootu dóor xale mu ne ma yow damaa ñu nekk ay waay mu ne ko aw loolu de moom mën naa ne yàlla ni wa anfaqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka yàlla nee na bu leen dugal ci seen loxo bu leen dugg ci lu leen di alak waxuma fii léegi li nga xam ne moom la médecin yi bind ni moom mooy rey ci kees gi dañ koy bind abi dangereux dañuy bind ni ci kees gi nit dafa danger la ci sante doomu aadama moom cigarette Australie instant yi politique bi ñu génnee dañu dañoo programmé xeetu cigarette yëpp nañ bàyyi tur yi te defal wutal ko benn tur wutal ko genn kees dessin ci bëñ yoo xam ne borom bu yàq bëñ ya yàqu na pour ñëpp xam ne cigarette dafa bon. Allemagne aéroport boo dem sëñ am ñu xam ne damay wax dañoo bind ci gaar yeeg métro yeeg yëpp ni tere nañ ko fi waaw loo xam ne nag ñoom ñoom ñi xam du ñuy julli sax tere nañ ku ko jëfandikoo ca seeni place nga xam ne loolu baaxul nit looy def te bu leen di bette nga nëbb ko rek loola baaxul. yàlla nag wax ni xoolal am na benn aaya ñaari aaya ci alxuraan pour wax la ni saa ñëwee foog nga dem ci alxuraan yëguloo ni alxuraan kese boo ko jëfandikoo sax boo moytu dem safar ak xadis kese parce que dafa am loo xam ne alxuraan da ko bind mais ñaari aaya daa ñëw aaya jee alxuraan yàlla mi wax ni ku sa jëkkër dee na nga tijji at beneen aaya ñëw ni ku sa jëkkër dee na nga tijji ñaar ñaari weer fukki fan mais soo jàngul ak naasixu wal mansuux ban ngay ban aaya nga ci nga xam ban aaya moo folli morom loolu amul ci alxuraan bu la wax ni aaya bi fu yàlla folle na ko aaya bi usul ngay jàng ñun la aaya bi moo folli aaya bi su ko defee li nga xam ne nag moom lañ ci indi ci ci ci nga xam ni eh, bu ñu ko doon tudd fii du jeex Ousmane ñaata waxtoo ma def xam nga waaw mu muy am na mbokk yu fi présenté ay euh, statistiques yoo xam ne ci wàllu euh, cigarette la léegi léegi ñu delluwaat ci yaa jox alxuraan yàlla nee na yasalunaka maada uxilla lahum yàlla neen lan lañ dagana ci yéen xul uxilla lakum tayibaatu wa maa allamtum min aljawaarih yi tey yi la leen yàlla daganalal ni al yawma uxilla lakum tayibaat wa taamu lazina utul kitaab kon tey yittee yee dagan léegi nag mu gën a leer nag alladina yettabiuna yettabiuna yettabiuna rasula nabi al ummi alladina yajidunahu maktuban عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث mu daganal leen ji tey waaye araamal leen yi nga xam ne xabisa la xabisa nag boo ko firee ci sharxal téere yi mooy lépp loo xam ni dafay indi lor ci yow lu bon la xet ga neexul ka ngay dendal xetam neexul ci dafa la yàqal ci àdduna bi ci des mooy kii tux cigarette Seydi Hajj Maalik sëñ Babacar Si daf ko laaj ca Ndar lee ci téere bi maam xabis si bind si radoxo ixwaan ma nga ca mu ne ko loo xam ci imaam raatib buy tux cigarette Seydi Hadj Malick ni su ma ko xamee man Maodo avant mu may jiite du ma jiite su ma jiitee ba pare ma soog a xam ne day tux ma baamtuwaat sama julli sëñ Babacar Si moo ko laaj Seydi Hadj Malick dox na ci ndar ci Mauritanie benn jigéen di ko àbba almet pour tux mu ne ko waa maa maana naaru lati tasal yiniha wala nahnu suraba du suraba duxaane axal xobxi walakinana nëx jët tijaani naqtafi wala xayra illa fi itibaa'i dawil fatxi ñun tarixa cheikh duñu dox duñu laal sigaret walay salana min ba'd ma qala shaykhuna illa idha ma bada idha ma bada qawlun siwa darbi wa sabhi lu cheikh wax ba pare ñun ñi lañ cey def kenn koy wax leen do ñu dégg seri xay ma ngi indiwaat na ci yeneen bayit cheikh saadu abihi nga xamni dañu wax sax ci cheikh saadu bi setam al alwali domu cheikh atxaana ñu fi ci dakar ni ma sama mam bind na ci ay bayit ci secret wanani baxul yàlla def ñuy gëstu bay de ba gis ko Cheikh Saadu abidi ni lasna nusalli nu salli billadi law kana naf'uhu wala ya'um kala wala liman tambaka tambaaka xamu li anana na'lam wa huwa yaalamu bi annahu fisqun wala karama wala shahadatan wala imam Cheikh Saadu ni ñun duñu julle ko xamne yegg ne yëg day tuux donte law kaana fa'ula waraa yaa ummu donte am na ñu koy wutal ak njariñ kallaa walaa li man tambaaka yee ji xamu kuy jëfandikoo tabaa ndax neen li ana naxal boobu yaalam xam nañu li mu def baaxul nii de baaxul Muhammad ibnu Baaba Mahanda Baaba ni wa kuruhuhu la dal lawaamii ittarax wa ayu naq layey kitaabay ni asax wal mubtali bi usbati duxaani in lam yatuf fa xatabu niiraani taraahu antanu ibadallahi xalban yadan tawban bila tanaahi mu ne loo xam ne day yàq tuñ di lakk loxo di lakk sa yére nee na kooku kenn mëntatul ak daganam su ko defee eh, ñu ñu tuddal leen ay turu téere yoo xam ne ca la nekk parce que liñ ci gëstu ci téere mën na fukk ak ñaar bu ñu ko doon bëgg a wax duñ fi jóg mais ku dem ci isaabu rafiq wa buxyatu sidiq fii xelli matni sulami tawfiq ila mahabatillahi ala tahqiq xaddi ba abdulahi ibnu xusayn abdou tahir ala ali moo ko def ci sigar lay araamal azawajir an iqtirafil kabair mu nekk 77 àll ak ay ayib dégg nga wax na ci sigaret boo demee ci tabsirul ixwaan fi bayaani adraari tabrixi al mashhur bi duxaan mahamad ibnu abdullahi atarabishi moom moo ko def boo demee ci al idaha wa tabyin fi itbaati tahrimi duxaan dégg nga araamal na ko waqulul jawahiril xasaan fi bayaani xormati tabrixi al mashhur bi duxaan اندنا نزول المالك والمملوك في تراجم مشاهير الملوك لشيخ محمد بن عبد الله الموقت المراكشي موقتالي قمه شهوتي عن تناول التباك والكفتة والقهوة شيدا علوي موقتالي على عقد نفيس في نظم جواهر التدريس تسير لوح أحمد بن إدريس المغربي فتوى علي المالك mënu sëñ Babacar Abone ba mu demee tënga ñu jiitaloo ko ajjuma mu leen mag ñi ndax dagana ma jiite fi ñuy werante xel ñaar mu ni leen dagana ma jiite fi dem leen indil ma fatawa alis ñu àndal ko ko mu ibbi ni leen xool leen fii diggante fi ma nekk tëngéej ak téyaa nga diggante bi matul dox waañu sañ naa bee jiite xam-xam baa bari boo demee ci nasrul asraarul bashariyati min tawaayal axlaaqil muhammadiyati ci muhammad al janbihi moom moo ko indi fa xaadis mbaam romb ko mu ni gaa yi téye leen ma mbaam mi ne ko su papa looy doy mbaam mi mu ni jàpp leen mbaam mi gaa yi jàpp mbaam mi mu ni sangal leen ma mbaam mi gaa yi sang mbaam mu ne watal leen ma mbaam mi gaa yi wat ko mu ne mbaam mi tuubal naa ko léegi sax léegi sax wutal naa ko beneen tur tudde naa ko xar pour rek affaire bi dagat su ko defee loolu lay kàddu di jéggalu ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa